Je voudrais koy euh, rappeler légui ni xam nga euh fait fexé ba. Mhm. Euh, liste bi publication mu dépassé tay tay tay tay violer bu dépassé tay lan moy am. violer nañ code électoral tenir élection le 25 février parce que article 30 constitution repris par l'article L126 du mhm. code électoral dafa a 35 jours avant le scrutin dañoo war publier la liste des candidats. toutefois minuit pile bu donc c'est 34 jours. 34 jours parce qu'on est le 20. Uh-huh. élection bi le 25 exactement 35 jours Quand tey moom mooy dernier délai pour conseil constitutionnel mu publier la liste des candidats. léegi bu conseil constitutionnel minuit pile bu jotee te boobule liste fësul lan moo war xel. élection le 25 février parce que néna 35 jours vous bu passé tu es à 34 jours donc Bajo, euh, Mamadou Bajo Camara na gaaw na mais pas Moussa yow c'est grave mais hein. c'est ça la euh, me la citer constitution citer le code électoral. article 30 constitution. exactement cet article euh, dafa 35 jours. avant le scrutin, mm-hmm. le Conseil constitutionnel procède par la publication de la liste des candidats. Cette disposition de l'article 30 est reprise exactement par l'article L126 du Code électoral. Donc, quand Taïdini la ñu 35 jours avant le scrutin 35 jours. Mm-hmm. parce que c'est le 25. Mm-hmm. le 20. donc 35 jours exactement Ce qu'on dépasse d'une minute on est à 34 jours. ça viole ainsi euh, la constitution que le code électoral. donc ça veut dire. ça veut dire que nous, sommes le 21. élection bi ne peut le 25. Les élections mu le 25 ki lay jour parce que le 20 à partir à partir de euh, le 21 janvier bi on est à 34 jours le euh, code électoral la constitution ñoom ñoo wax lu ni mel man waxuma mhm. élection dafa élection parce que euh, le 25 février Inch'Allah, le Sénégal day dem 12e élection présidentielle e Mm. de 1960 jusqu'à nos jours quel le a reporter l'élection présidentielle ci mais est-ce que report xéñul parce que euh, sur la bataille, euh, Daouda et toute l'équipe de T3B nous ngi offert euh, si constitutionnels si conseil constitutionnel comme journaliste Mais, en ñu ko défé mais fu mu affaire yexna lan bloqué selon vous. man de man de lima, lima, <laughs> depuis le début. bi saawaay du bokk. muy kan. Euh, mon président Macky Sall son fameux discours du 3 juillet. Mhm. ba tey man acte yi ma gis ñuy poser parce que parfois sax c'est est nullement euh, voilé ci réseaux sociaux yéne ki da ngay sentir ñi bëggu ñu dem élection. Macky mo bëggu ta dem wala opposition bi ñoo paré gul euh, opposition nous muy bañ paré parce que opposition bo waxé ñi nga xamanté dañ leen recalé. Mm. gis na ben genre xawma lan lettre ouverte wala naan. les 44 recalés. gis nga élection bi. Mm-hmm. xaarul ku paré ak ku wul njàpp fii ba 2030 dina am ñu wul mhm. si quelqu'un comme moi se lève un bon jour pour ne candidat là ken xamuma tojuma fenn mais ken laay paré alors ñun dañuy jël suñu calendrier électoral calqué ko ci tierce personne bu wul c'est pas possible ça. ku wul paré woo demal tok xaar ba benen yoon mais mais mais Pape ça xam nga lan ma jaaxal dama yaakaaroon ne tey jii sax euh, parce que sànq taal ñoom mu ñu koy euh, signaler ci euh, commentaire qu'on avait dit 18 h ñu né nen décalé peut-être d'ici 1 heure conseil constitutionnel dina joxe li nga xamné mo nek la liste disoo nen liste bu génn qu'est-ce qui s'est passé. mais publier liste rek jarna li yëpp. ah moo ma on est 19h35 fi ba minuit le Conseil constitutionnel a l'obligation de publier la liste. Quel que soit le euh, ñoom c'est recours non. na naam. Mais il y na mais moment moom le Conseil constitutionnel 48 heures y am def recours Il ña def recours nga étudier recours yi yoon moom moo obligé le Conseil à publier la liste aujourd'hui mhm. aujourd'hui Au Taïdini, le 20 janvier ba minuit dafa war a publier la liste des candidats y y a yaa yaa y a beaucoup d' interrogation ci euh, mbir moomu noonu gis nga waa PDS ñëw nañ léegi conseil constitutionnel. Mm. qu' est ce qu' ils font là-bas. moom a jaaxal voilà. Euh, <laughs> bu bu nam doon demee ci yeneen i jamono sax heure bii ñu ngi naan way patriotes yi repoussé nañ leen fee mais <laughs> àdduna mën a dëpp te PDS la ñuy repoussé mais njàpp quel que soit euh, li mën a am nanu publier la liste des candidats parce que euh, recours limou bari bari bari bari bari ñaata ñaata candidat lañ def recours sinon ils sont euh, c'est euh, Cheikh Tidiane Dieye Bassirou Diomaye Faye ak ki nga a ramené mooy Domi Abdoulaye de Karim donc contre les candidatures il y a que quatre. trois. non bon Mohamed boum Abdoulaye Dione. bon c'est-à-dire c'est-à-dire bu ñu jaawale dafa am des recours contre les candidats. Mm-hmm ak des recours yo xamantene ay candidats ñom ñoko def bokul mais qu'est-ce qui explique aussi euh, recours yi nga xamné ne candidats yi seen biir aussi defante ne ko Pa Pa Moussa. comme ban comme ban parce que bokkuñu. Euh, comme bi nga xamné ne euh, Amadou Ba def na ko si kaw Cheikh Tidiane Guèye ak ki nga xamné mo nek nekk bas. mais mais mais ndiap recours bobu mom xamna naa ne loo mën muñ meuna muñ retane nga ci bossom comment ça on peut dire ñu ñu ñu mën a préciser une appartenance politique sur la base de photos. Mm, mm, Ça ne veut rien dire. Hein. Macky Sall ak Ousmane Sonko am une photo. donc Macky Sall il est membre de Pastef maintenant. jamono Covid bi. waaw léegi bu dee nañ photo Vous bu dee photo rek mooy prouver appartenance nañ génne photo boobu ne Macky Sall Pastef la mais par non mais c'est léger de la part de Amadou Ba Tenak. Tenak. te nag ki ko recours parce que moi, dama gëm ne recourir, am yëpp la ñu war rejeter mom Amadou Ba ñetti recours yu mu war a dugal yu mu en tout cas ce qui concerne Diomaye fay ak euh, Cheikh Tidiane Dièye yoy yëpp dañ koy rejeter <laughs> parce que un premier premier bi li muy wax euh, Cheikh Tidiane Dièye sur la base de photo nga nan Pastef la bokk lolu lolu lolu loolu conseil constitutionnel dina ci taxaw donc kon am sympathie à Ousmane Sonko kon donc pas dire c'est son ami mais am ci droit mais bien sûr Amadou Ba euh, am ay ami yu nek Pastef keneen ak keneen am c'est-à-dire am amitié moom fo loolu du dara mm. donc kon boobu noonu tegee nañ ko nële mais beneen recours bi gëna doy war ci Diomaye Fay mu ne ko non appartenance à la coalition qui a investi Diomaye. Hmm. mais mom mom kon mom xana na rejeter. le parti socialiste ne l'a pas investi. Hmm. moom mom Amadou hmm. est-ce qu'il appartient au parti socialiste. non euh, euh, l'AFP l'a investi non. non gis nga disposition bobu non ci code électoral dafa nek ci disposition générale. manam disposition bi nga ça concerne toutes les élections L57. toutes les élections euh, local yi soo xam ban parti moom moo investir bi. Mhm. Medina Bamba a été investi par quel parti gëm sa mhm. en 2012 euh, avant euh, le président Macky Sall a été investi par le parti modèle coalition Dekkal de Ibrahim Sall. Il ci a parti bi na fay ñu lay investir même lors des élections yu euh, y euh, du Pastef beaucoup qui sont non Pastef non exemple euh, parce que Pastef a na ci coalition hmm. mais Macky Sall 2012 dafa amul pas 2012 de Ngor dafa amul mais mais mais est-ce que sax taxaw Sénégal non Sénégal du parti du parti plateforme donc Khalifa Sall coalition bi koy investir amul benn ci entité yooyu bu mu bokk. donc pour te dire à quel point les recours de Amadou Ba moom dañ koy rejeter par revers de main duñ ko sax xool. da nga jàpp ne carrément Amadou Ba recours mi. kenn war ko na ko amul benn chance génne kii di Bassirou Diomaye wala kii di. Euh, benn benn benn c'est-à-dire loo xamante ne jarul ngay jàng droit jarul ngay nekk Mamadou Badio Camara loolu jaru ko de. mais am na benn polémique bu am. si l'article huit cent une. je pense bien lu mhm. mu wax. ci di quoi. Euh, parce que dafa comme article mhm. juriste dañuy carrément euh, nit euh, ci association éducation populaire te éducation populaire bi amna mhm. mhm. <laughs> ñu ko interpréter né parti politique lañu sous-entendre je buñ la d'ré, je droit ci élection dama bëgg nga gis yow ak Cheikh Ousmane au passage <laughs> monsieur plateau parce que euh, disposition bi nga wax ni la bëggona wax. mais d'abord, d'abord, bobu les dispositions lu mu wax. des obligations civiles et commerciales la nek ça c'est une première chose. Hmm. gis nga euh, bi Ousmane Sonko fait recours au niveau du tribunal de Ziguinchor. Mhm. bañ ne nañ ko réintégrer. Hmm. bi mu euh Sabassi pacifier bi mu joxé décision ñu ñu attaquer décision bobu non, la agent judiciaire de l'État attaquer ko au niveau de la cour suprême xam nga cour suprême wax. Hmm. cour suprême waxu ko né da nga da nga joom dé cour suprême lu mu ko wax. daf né ko li nga wax deug la mais li nga ko layalé dafa sori. Hmm. yow yaa ngi dem ba code des obligations civiles et commerciales pour layal l'exploit d'huissier alors qu'on est en matière électorale code électoral nga waroon yam loolu lako conseil constitutionnel euh cour suprême wax. Mhm. loolu dama la koy dello si d'abord on est en matière électorale. ok li génne nit ci élection. Mhm. ak li ci li ci dougal code électoral la donc COCC mom déjà yonam newu ci mais mom euh, convoquer ko nag loolu rek éliminer na argument mais nañ dugg sax ci biir argument bi. allez-y association. parce que tay moom da ngeen ñëw pour l'air. nañ. Euh, association la waxul parti politique de. Mhm. parce que amna loi yu régit les partis politiques. association c'est-à-dire euh, xam nga mouvement scoutisme éclaireur wala genre yoy non mhm. en fait l'esprit de cette loi ñu lay waxal éducation populaire. Mhm. waxul ak ay partis politiques. ça n'a rien à voir ces dispositions du COCC avec la candidature n'ont rien à voir. Et je te donne des exemples précis. Mais euh, l'Afrique euh, Afrique du Sud ANC dañ ko dissoudre woon. Mhm. tey jii presque parti bobo qu'est-ce moo moment a euh, Yobou nit président ak ñeneen la d'exemples. autant à dire quand à dire code bi muy wax bokkul ak bi régir lii xew. Mhm. benn ñaareel ba li nekk ci fond wu wax jooju noonu ay association buy def euh, éducation populaire bokul ak formation politique bi di Pastef donc encore une fois looloo tax man lima don commenter sax la dissolution de Pastef wut parce que dissolution parti bi amul impact ci ben candidature parce que yow euh, jarul ngay jang droit utiliser la xel mu sel yow sa xel mën na nangu nga ne ba ila yow mi diin mhm. biram Souleye Diop mënatul don candidat ci réew mi parce que c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre en fait. C'est Amadou Ba bataille. Légui, euh, Légui, mm-hmm. gis nga coono gi ñu daj ci Ousmane Sonko. de 2021 bataille di ni. fouler au pied euh, le droit. Mm-hmm. violer ay lois. dem ba désacraliser ay institutions parce que la Sénat bi nga xamante moy mooy arbitre élection yi joxe injonction ñu tégué ko neulé. Mm. deux juridictions joxe décision ñu tégué ko neulé. Choono googu noonu yépp ñu dacc pour Sonko bañ doon candidat est-ce que bu doon dissoudre parti doyoon na rek duñ fa yam en tout cas.